daal leen ak jàmm seen émission seen wérgu yaram eh, seen yaram nag ñëwaat na tey pour waxtaan ak yéen si beneen tawat muy feebaru asthme muy feebar bu doy waar eh, mais bala ñuy wax si feebar bi dañuy nuyu ñëpp rawatina suñ bokk fajkat yi ak aussi docteurs yi ndax tey jii ku jaaxle ñoom nga njëkk xalaat eh, lii nag bu ngeen gisee émission bi dañuy yeete rek. ndax gis nañ ni ñi ëpp si doomu aadama yi tey jii amuñu moyen xëy na pour accéder si yenn soins de santé yi nit ñi xëy na seen kàttan àggul foofu ba tax na it ñuy bëgg a peser si côté prévention bi nepp lu ñuy def ba nga xam nit mën na jël garab mu dimbali ko ba vraiment tawat du ëgsi si moom je crois que loolu war nañ si appesantir muy prévention bi te it ñu gis ni aussi autorités yi ñu ngi def liggéey bu rëy si wàllu woowu surtout avec la couverture euh, maladie universelle lii ñuy def nii yaakaar naan suñ participation la si euh, anam boobu euh, feebaru asthme nag lu tax ñu jël ko tey mooy nekk na tawat bu doy waa asthme nit ñi dañ koy oyofal mais asthme baaxul day rey nekk na feebaru xëtër aussi luy waral asthme boobu nag ñu ni soo amee li koy indi mooy rétrécissement des bronches mooy xëtër yi tiwo yooyu sa nekk ñooy ñooy dañuy fasu

si xeetu lekk yi nga xam ne moo baax si asthme ak yi nga xam ni gënul si asthme mais bala ñuy dugg si loolu dañ leen di wax li nga xam ne moo ëpp lu muy déclenché crise bi wax nañ ne boo dee jigéen am asthme da ngay éviter léeg-léeg wàññi lu bëri parce que wax nañ ne même odeur boobu di dégagé wu si cin li mën na indi déclenché crise u asthme boobu saxaar si nga xam ne moom ngay toggee muy këriñ bi saxaar soo siy jógee mën na déclenché crise u asthme bi am na beneen buy indi saxaar bu gën a bon boo xam ni ñaa ngi siy waxtaan yi muy cigarette cigarette aussi ki am asthme daf ko war a éviter même ki amul asthme sax dafa war a sori foo xamante ñu ngi koy toxi cigarette boobu donc loolu nekk na wax mën na déclencher crise bi poussière da nga koy moytu bépp lekk boo xamante ni dafa bari gras aussi waroo ko lekk surtout guddi gi lu niin trop muy beurre beeg chocolat bi yeneen wax fay indi reflux ak graisse geeg yàpp bu duuf bi soo ko dee jël tëdd day indi reflux reflux boobu bu yéegee mën na di crise asthme boobu lépp loo xamante ni aussi dafa am mante da koy éviter ba tax na tey ñu leen di woon naana bi naana mante bi soo koy jël aussi moom mante bi mën na indi li ñuy wax crise asthme mën na ko indi mën na ko déclencher crise asthme donc ki am asthme dafa war a éviter naana mante bi parce que mante yëpp pratiquement day déclencher crise asthme beneen bi nga xam ni nit ki dafa moytu mooy crevette produit la mer yi comme crevette bi hmm, bokk na les produits yi jógee si géej soo ko dee jël dafay déclencher crise asthme boobu donc ñoom ak paañ ak yeneen ak yoo xam day jóge si géej da nga koy éviter kii meew la ki am asthme daf ko war a parce que kii dafa am gra muy meew mi am aussi calcium te yooyu day indi reflux te reflux boobu mën a déclencher crise asthme boo gisee asthme dafa am rapport ak problème estomac soo amee une ulcère gastrique wala benn problème beneen problème boo xam ne si biir la reflux boobu ngay indi dafay indi crise asthme donc bari na ko am asthme nga koy faj fajaloo ko estomac bi mu am dinay tax feeb bi gën a donc bu fekkee dafa am problème ngay traité gastrique bi en même temps di traité asthme ba noppi di ko éviter loo yi nga xam ne dafay indi reflux gastrique kii di xorom aussi nit ki daf ko war a wàññi si kiyam ki am asthme daf ko war yemale warul bari surtout guddi gi nag la gën a tee bon soo si jëlee lu bëri tëdd guddi gi moom xorom bi mën na déclencher crise asthme produit yi jógee si géej la bokk aussi ñu yemale ko si togg surtout guddi gi donc kii di nen aussi dafay déclencher crise asthme ki am asthme daf ko war a éviter waru si jël lu bëri moom ak aspirine même aspirine bi nga xam ne dañ koy faral di jël wala effervescent yeeg yooyu soo ko dee jël mën na déclencher crise asthme donc yooyu mooy xam yi nga xam ne nit ki dafa doon éviter si lekkam yi nga xam ne nag dañ koy santaane nit ki di ko jël lu bari bokk na si légumes yi ñu leen bëgg a présenter nii ak fruit ak yeneen i mbir yu na si biir kii yeneen yu bëri xam nañ ko muy poobar lu baax la si asthme wax nañu soo amee asthme vraiment defar sa benn kaasu dute lu tuuti poobar def ko si naan si kattanu yàlla bu mu bu doon crise da koy calmer si saa donc poobar bi vraiment am na njëriñ si feebaru as boobu. aliments yi am caféine aussi mu mel ni kafe gii tey jii Nescafé kii moom boo amee crise as mu yeel a guddi dara jigéew la lu dul café defaral tuuti Nescafé lu toll nii rek nga def ko si genn wàll kaasu ndox ba nga naan si kàttanu yàlla si saa si moom fa la crise as bi yam lii di guro aussi baax na ndax dafa am caféine soo ko day jël si kàttanu yàlla moom guro bi mën na la dimbali ba. crise asthme bobu di espacé wu ndax mom bokk na ci moyen yi yi prévenir asthme ndax caféine bi mu am li di warga aussi xalé yu goor yi bëgg nañ ko trop lu am solo la ci asthme soko day jël yalla mëna la dimbali mu baña bari suukar nak te ga togg togg bu yam day calmer crise asthme bobu yi nga xam aussi da fay jouer ci prévention bi moy yi am vitamine C bokk na ci par exemple limon bi soko day jël lu bari ci si yalla da fay tax crise asthme di espacé wu donc à long terme moyen de prévention la donc rôle boobu moom la mandarine bi di joué mandarine bi aussi boo ko dee jël mandarine di ko jël yàlla mën na dimbali ndax vitamine C bi mu am dina espacé crise asthme ba na dem sax ba faj ko à long terme même vitamine C dañ koy amaat si orange bi boo ko dee jël si kattanu yàlla yàlla mën na la dimbali ba loolu ñuy wax asthme vraiment du la yab donc bu ñëwee si légumes yi dañ leen njëkk si teg chou pommé bi chou bi moom. wax nañ ne dara gënu ko si légumes yi vraiment prévenir asthme crise asthme boobu ndax dañu am li ñuy wax ay phytoestrogène phytoestrogène ay dilatateur lañu ay bronchodilatateurs dañuy ubbi xëtër yi ba nga xam ne ngelaw dina mën a dugg si normalement génn normalement donc lii di chupome neen koy utiliser aussi lu bëri bi gën nag mooy cru bi bi nga xam ne togguñu ko nga haché ko def ko si benn kii bu ndaw lekk kooku boo ko dee def si kàttanu yàlla sa crise asthme dana espacé wu rôle boobu antioxydant yooyu moo nekkaat si carotte bi soko day jël moyen de prévention la ak même de traitement de l'asthme à long terme ou à moyen terme donc boko day jël ci kattanu yalla yalla mën na la dimbali rôle bobu mom la poivron bi am ci hmm? dafa riche en vraiment en phytoestrogène et en antioxydant soko day jël ci kattanu yalla yalla mën na dimbali moom lii di poivron ñu koy wax salade yalla mën na dimbali ba sa asthme bobu wér ci kattanu yalla li aussi nga xamné ne jigéen ñi bëgg nañ ko trop muy soble Hmm? dafa riche en quercétine te quercétine boobu antioxydant en même temps bronchodilatateur la dafay ubbi xëtër ba nga a ndax as bi li koy indi rek mooy xëtër yi euh, sa su ko nga aussi efficace na trop ndax vraiment euh, phytoestrogènes yi si nekk ak euh, donc yenn yeneen sel minéraux ak vitamines yi si nekk. li gën nga jël ko nii nga jël ko nii moo gën donc nga jël ko nii vraiment cru moo gën daggate ko lekk donc su ko su ngeen gisee nag ma proposé leen yii lu mel ni tamaate beeg chou bi bu ngeen gisee ma proposé leen ko ay bronchodilatateurs lañu dañuy ubbi xëtër. dañuy ubbi maanaam euh, poumon yooyu ba nga xam ne yi vraiment dina mën a respirer normalement te kii tey jii soo demee pharmacie lañ la fay jaay comme médicament hmm, ñu koy wax bronchodilatateur kii mën na ko remplacer te amul effet secondaire parce que li ñu xaw a ragal si léeg-léeg produit pharmaceutique yooyu mooy aussi léeg-léeg bu dee xale nga koy jox dinay indi des fois xale bi di xaw a agité ba noppi nelaw mën na kii ba noppi day am manque de concentration

yii comme ni ma leen ko waxee dafay fortifier en même temps sa organisme parce que lii boo ko dee jël waxuma sax asthme bi muy faj mais daf lay dimbali ba may la kàttan may la doole. donc lii tey jii moom la ñoon du indi si feebaru asthme di leen wax ne daal pour ñu tënk ngeen moytu yi nga xam ne moom lañ cité léegi muy xorom su bëri si guddi gi nen muy crevette muy produit laitier yi ngeen koy éviter di jël guddi wala am mante bal ngay tëdd loolu day déclencher crise asthme li nga mën a jël mooy yii ñu leen woon nii. mooy yi am caféine woon nañ leen ko léegi fruits yi ak légumes yi boo ko dee jël si kattanu yàlla yàlla mën na dim la nga mucc mbokk yi ñu ngi leen ñu ngi yem fii ñu ngi leen di dox jaje seen benn émission